Salam alaikum, chers téléspectateurs chers internet OTV chers xarit chers doom day Moussafa, comme j'ai l'habitude de vous le présenter tous les quinzaines ans, euh, nag dañu ñëwaat ak qui ci un level ah. comme nous ma leen ko waxee au sport fu et lay fëlee ak de profiter di souhaiter gars de di leen wax une leen Noël ah. bonne fête à tout le monde mais ci loolu damay am mbégte xam naa ne yàkkamti woon ngeen ñëw di gis plateau waaye rawatina tey maam invité bu spécial invité boo xam ne ni euh, présenté ko yomb du yomb Euh, ndax euh, ku def ay jaloore la ci réew mi rawatina ci li nga xam ne ni mooy dëkk bi nga xam ne fi la dëkk judo fi màggee fi yaroo fi ba keroog muy euh, def li nga xam ne ni mooy ay ay mën mën mëninam ak i feemam ci équipe bi nga xam ne nii mooy équipe nationale du Sénégal mais avant muy dem équipe nationale du Sénégal am na ay jaloore yoo xam ne def na ko fii ci réew su ma ko waxee seen xel war na dem ci ay internationaux yu bëri biir wakam mais dafa am koo xam ne nii nag euh, moom particularité am yaakaar naa ne bu présenté woo rek àdduna dinañ ko xam ndax c'est un gars boo xam ne ni vraiment il est respectueux hein, un gars bu disponible koo xam ne il a beaucoup fait pour l'Afrique il a beaucoup fait pour son pays euh, c'est un combattant de luxe su ma bëggee wax ay valeur am euh, ci présentation bi mën nañ fi yàgg waaye nag nit ki ni mu toll rek ci noonu ah, nga ko mën a euh, bàkkee ginnaaw bi ma la nuyoo l'international dama lay bàyyi nga nuyoo présenté si ñi nga xam ni amaana gëj nañ la gis wala gëj nañ la dégg namoon nañ la lool lool lool lool il se nomme Pape Malick Diakhaté bàyyi nga nuyoo présenté wax kan Salam alaikum wa rahmatullahi taala wa Euh, Amdi Moustapha je parce que ça fait longtemps donc euh, donc voilà dis le dis-le, dis -le forcément parce que ça fait longtemps on se connaît depuis très très longtemps. Mm-hmm. mais dis, voilà présentation je pense que su may wax wa waa jarul may présenté où, mm-hmm. mais vu que la télé va au-delà de Wakam donc euh, voilà Pape donc euh, ex-international. Euh, ex-joueur professionnel, euh, devenu maintenant entraîneur dans, dans, ma nouvelle profession. Donc, euh, donc voilà. Et puis aussi du Khalewakam, Magewakam, des wakaam mhm. mhm. Et fii yaroo donc forcément turbo le monde. donc as mhm. voilà exactement il nomme Pape Malick Diakhaté l'international ñi naan kon As Diakhaté hein, xam naa ne am na yeneen tur mais comme nag euh, yeneen tur yi bon pour ñi xamul peut-être si biir émission bi dinañ leen ko wax parce que gis leen ko nii rek ak timidité bi mais mais mais mais ku def ndawam la koo xam ne li may wax gu nekk njaayeen la hein. certes il est un peu timide hein, vraiment c'est un gars boo xam ne ni man euh, damay wax chaque jour c'est un spécial à toi yàgg nga ñu bégal mais tey su ma bëggoon xam ana kan mooy Malick Diakhaté en tant que sénégalais yaa ngi naan sax ex man du ma ne ex international parce que ba tey yaa ngi ci euh, tey su ma bëggoon xam ana kan mooy dëggi-dëggi Malick Diakhaté euh, waaw xam nga nit moom fu nekk rek dafay sosoo mhm. man sama papa euh, il est de Rufisque mhm. ancien lutteur mhm. yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana amin El modu Modou je pense que képp ku tolloo ay aneem merci mon gars war c'était un ancien lutteur qui était vraiment connu suma yaay yaay seen wakam, juddoo wakam yarofi. donc voilà ñaari nit ñoo ñoom meñ ma judd fi nak samay samay wajur soso Wakaam samay mam ñu xam def lu sport donc voilà et puis euh, foowee ndaw fi donc euh, jouer école football Aliou Camara donc après intégrer les petites catégories de l'US Wakam, mhm. jouer Navetan à Dialoré, mhm. mon seul club et qui restera toujours mon club de cœur forcément, mhm. parce que j'y suis né j'y ai grandi, je me suis développé en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Donc, euh, donc voilà, Wakamwa pur et dur, quoi aussi, mais en grande partie euh, voilà parce que Fila défait Exactement wakaam moi pur sang gu nekk tay tey asmaliku lan moo la dugal ci lan moo la motiver à ce que nga dougu ci football bon judo aussi famille sportive déjà comme nous ma ko parce que mhm. suma papa c'était un suma papa c'était un ancien lutteur mhm. euh, mon c'est pas beaucoup mon lutte mais football moma ma attiré parce que tous mes grands frères ont joué au foot Malik Omar euh, Moussa mhm. Khadim qui a été un grand dirigeant mënoon football aussi mais tel a am ay gaañu tout ça. Mhm. donc voilà j'ai été bercé dans le foot donc forcément pour moi il était naturel que ma nekk footballeur au fait. parce que loolu rek se mos a fooyee mosuma fooyee football football. je me rappelle bu ma nekkee xale bu ma doon jàngi damay peeral suma bal dugal ko ça sama sac. donc euh, sama yaay da doon yow fajar bi génnee ko su ma man fajar ma jëlaat bal bi dugalaat ko sac tu vois. Donc euh, pour moi, c'était naturel, moi, avec le football 4, on fait voilà ok c'était naturel nga nek football kat. nga xalé xale. Mm. Mm. te ku ne xam na période bobu di def ay études. bëgg ko mm. bolé sport c'était un peu compliqué. exact euh ana nan nga ko don dundé ak say wajur amoon na xëccoo parce que tey naam. Euh, sa wajur bu goor mbeur la woon. Euh, ñun féké ñu génération mais suñuy mam ak suñuy yaay féké nañ ko. tay mën nañ né ay Balla gay modulo niñ ni ñu leen di déggee ba mu ciy toll moom. Euh, yaakaar naa ne maire yi ak paa yi fi nekkoon. daan nañ ko teewee. tey doonoo doomi mbër waaye nga nekk footballeur ndax danga nga juddu fekk say mag nekk ay footballeur comme ñi nga ko cité léegi ñoom Moussa Wade ma koy nuyu de passage lig booy al dem lig moom xamul woon dara garaawul <laughs> mais xam nga tey yow nga ñëw <laughs> vraiment euh, téye téye loolu doxal ko ba tey li yàlla def mu def ko lan moo la motiver woon bon je pense que xam nga soo soo juddoo si famille sportive mm-hmm. dina am ay ay ay lu tax nga développer sa sa li nga mën mm-hmm.

teel a topp sama mag yi quoi. donc du coup goût boobu moo tax ma am goût football après xam nga tamit lépp loo xamante ne da nga koy def muy développer ci yow les gens de dehors ñoom ñoo koy découvrir en premier forcément. Mm-hmm. donc souvent su ma doon football nit ñi dañ ma doon wax ne mais attends yow même soo waree football ak sa copain yi da nga leen naan non sama yaay day mer est-ce que suñ joué ba pare mun ngeen ma jox ndox ma sangu affaire donc souvent man su ma football football dama doon football parce que mère bi école le gnon, focaliser bëgg ñu focaliser aussi. école donc forcément par rapport aussi le vécu qu'a eu mes frères. Mhm. Euh, parce que amuñu une ben ben rémunération parce que bàyyi une seen tout ça donc elle avait peur de ça quoi. Mhm. donc du coup voilà ça a commencé à se développer comme ça ba ma commencé la euh, semaine de la jeunesse nous sommes ma équipe de Dakar après nous avons un match contre euh, sélection euh, cadette équipe nationale. avons mhm. joué un match amical et je me rappelle c'était Salam Lam l'entraîneur. Je mhm. ne suis pas gaucher Qui l'a bogue jour l'a donne cette tu vois C'est comme ça que je suis allé en équipe nationale cadette. donc et c'est par là que tout a basculé en fait tu vois. sélection cadette après c'est là que Nancy m'a découvert. Mhm avant que dem Nancy jaar nga ci club Wakam. exactement def fa ay première intégration ci biir équipe Wakam. waaw. <laughs> c'était comment. waaw lu yéeme parce que man nga comme nous ma lay waxee man football du loo xam ne dama ko defoon vocation en fait. tu vois au début en tout cas du loo xamante ne dama ko defoon vocation jusqu'à ouais treize quatorze ans du loo xam vocation la woon pour man. dama si doon faux voilà bien que ne dama doon l'école école football le tout moo sa passion. mais mm-hmm. pour Samaya, il n'était pas question. Mm-hmm. que je devienne par exemple que je fasse du foot c'est mon métier tu vois. ok donc ça tonton daf si doon xuloox moom nekk kii qui lay yóbbu màkk grâce au foot tu vois à l'époque je me rappelle tu vois. donc du coup euh, benn jour me watch école. Mm-hmm. ma daje Moussa Kébé. tu vois je ne ma. Je boy, nañ dem entraînement ESO ma ko boy man taluma seen affaire yi damay mu ne non et je me rappelle short jean la sol basket ma ñëw loolu laa entraîné entraîneur bi ne ko mais kii ka la mu ne kii mooy As Je waaw mu ne ko mu ne ko non par la fin Zé ma ma est-ce que jouer pour man ma ko man dañ ma mu non non non yow da ngay à l'époque j'avais même pas de carte d'identité moom moo defar ma carte d'identité tu vois indil la police àndax man sama carte d'identité génn commencé à jouer Non, la affaire bi au fait tu vois mais sinon petite catégorie yëpp mais à partir du moment que ça devenait sérieux mhm. dama doon ragal maire découvrir quoi quoi voilà ba bi ngay intégré ci club bi yaa ngi laxatu maire bi bu may dem équipe nationale cadet sama elle l'a su la veille

Euh, c'était compliqué non la affaire bi ñëwé quoi. non la ñëwé nga am goût bi jékki-jékki commencé am euh, vraiment dugg ci bain bi carrément. pour wara mëna mm. intégrer ci li nga xamné moy mooy. Euh, ñu gis né à l'âge à très de très bas âge hein nañ né à l'âge de quinze ans ou mm. seize ans. ci nga quitté sa famille. dem ci sa benen famille suma ma benen famille manam da nga dem fofu ñuy wax Nancy Lorraine mais mm. da nga dem ñu accueillir la. tay bi nga demee foofu lan nga ñëw mën a may ci loolu par rapport ak accueil bu chaleureux bi nga xam ne am nga ko foofu. waaw man lu may lu may njëkk retenir mooy jour bu may dem naa si au fait. Mhm. parce que xam nga soo teelee ñàkk sa papa. Mhm. yow nga màgg ak sa yaay. Mhm. bon dafay doon papa boo xam ne timit doom rek la buggoon tu vois donc forcément soo ko ñàkkee nga commencé nekk ak sa parce que maay ma caatu papa donc forcément. Vous j'étais gâté comme tout. nga ñàkk ka après euh, nga nekk ak ce sa yaay moo leen yar mu yar aussi bu machallah voilà quoi xam nga jigéen rek nekk. ak à mhm. euh, bu c'est c'est très difficile. surtout adolescence. les amna dom, donc je peux comprendre et puis mu am âge donc mhm. tu comprends la difficulté que c'est mais honnêtement voilà quoi ñàkku moon dara. Nous sommes morom am am ko musuma ñëwee sama ben morom donc euh, le jour où je partais en France sama grand frère Omar daf parce que je je suis très euh, dama am benn complicité ak mom mhm. si ni ñuy xalaatee tout ça à l'époque sama grand frère dañ ma su fekkee da ngay dem fi ngay dem dis-toi juste que ne loo amoon fii dañ la ko pour nga progresser pour devenir ce que tu veux devenir okay.

ñu ne dañuy jël ni ni si gën. footballistiquement. Uh-huh. bon tu te dis que ne man dama bëgg bok ci si ni fi raw quoi. et puis voilà au bout de dix jours non ils m'ont appelé ñu ne mm. ma doo ñibbi au fait ñu nga ñibbi da ngay essais yi baxna na mais doo ñibbi dañ lay téwaat fi ba mois de juin nga dogo a ñibbi là on était au mois de novembre. waaw donc j'ai fait la demi-saison en mois de 17 et après ma enchaîné ma ñibbisewaat vacances préparer préparé sama papier après de delluwaat. Ce mhm. premier retour au bercail. nga war a ñëw en tant que doomu dëkk bi <laughs> nga bàyyi woon maire bi ak nameel bi nga xam ne nii euh, na ko ci yow nan lañ la accueillir. bon naturellement parce que xam nga so soo juddoo si famille boo xamante ne am na ñoo nañ star avant toi parce que mhm. sama grand frère yi bini football ay star lañ woon. Euh, koñ ba ñëpp ñoom lañ doon wax tu vois donc da nga sen ombre au fait donc yow sont dara parce que c'est mon premier vacances may hmm. honnêtement je dara changé si fait parce que dama sama yaay là, nam suñu waa Je donc damay Je ak sama copain qui euh, punch parce que habitude tu vois dem football camp ba hmm. déconné ak copain tu vois et puis là, la le one finalement. en plus bob célibataire nga aussi. exactement exactement bon après dafa qu'on l'a xamante ne nekkagul woon sama Bob au fait parce que comme le may wax euh, toujours sama sama neveu yi ak sama sa manière si naa leen soo leen bëggee dara So soxlee dara yow rek yaa xam nan nga koy effectivement mais bi gën a jub bi metti forcément. effectivement donc. Euh, voilà je savais que ne liggéey tant que mu mon bop, ma objectif ligue pour nek lu may nekk bah, après voilà talent bi mon fils, donc forcément après il bu si le loxoom rek. da ngay dem day donc euh, à ce moment là je pensais pas à tout ça honnêtement. ça ouais. ça. ku ne xam na Maliku ni mu meloon hmm, ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci diine hmm. euh, tey yar nañ la ci diine ba la plupart dañ doon wax ne moom du fowee heure julli hmm, ana jàllaabi bi waaw jala yi mu ngi fii am na léegi yu bëri. <laughs> am na yu bëri. parce que à l'époque benn boobu rek la amoon. benn boobu nga amoon. exactement mais nga fonkoon ko jox ko cër. ndax bëgg gi nga xam ne bëgg nga ko tarbiyu ci lislaam mm. yar la ci. Mm. tata euh, ku ne xamoon na sa waajur ni mu meloon. Mm, ci diine. Ah, yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. dama naan doomu yaay nga ndax. Euh, certes amoon nga ay frère mais yow yaa nekkoon chouchou boobu c'est sûr ba bo doon absenté paraît que sax dalay lay grave c'est vrai ah mou koy stressé et tout mais sa ñew yëpp mm. sa presque say vacances si sa yaay nga ko don passé mm. tu pouvais faire comme beaucoup de personnes génn dem bàyyi sa wajur mais tu mm. étais toujours avec la famille tay lan nga ñu mëna may ci sensation boobu mais nga mayaale mo aussi euh, ci li nga xamné ni nii euh, dund nga ko ci pendant les fêtes religieuses lu ci melni tabaski lu ci melni corité korité don dundé pour commencer si si euh, question bobu la ñëk répondre parce que en fait euh, xam nga ñun ay jullit lañ ala kuliyal lu am rek si famille julit lañ judo, tu vois mhm. si lañ màggee si lañ yaré yaree dañu juddu mhm. euh, ñu nodd suñu nop benn bi li xam si benen bi tuddee ñu turu julit tu vois et puis ñu am ay valeur mhm. donc valeur yoy lo yag yag Europe su féké en tout cas yar biñ la yar lu deggu la du mës dañ

Euh, c'est-à-dire que ma ñoroon mooy. Mhm. entraîner su ma amee le pour football mon grand frère bien que ne pas woon ay liggéey ils touchaient beaucoup d'argent. Mhm. mais ils ont tout fait que même mon papa bu mu pas sama mère, elle a tout fait pour que je ne manque de rien. le football ko am dans le football. j'avais mes propres chaussures. donc mhm. ce qui fait que quelqu'un ne me corrompt par rapport à ce truc là. a kaay football mon quartier. parce que non voilà lolu musuma corrompre après euh, je pense aussi que né xam nga comme li si wax rek bu bu jito après voilà nit mënu la quoi dara mënu la jaaxal ci exactement paraît-il que ku la daan bëgg gis si sa ñëw day xaar la ci buntu jaak yi ak yi ah, ba def nga Asmalikou en dehors de sportif te quelqu'un de social très mm. humble disponible mm. euh, lan moo lay lan la lay def ngay ngay ngay dimbali doomu aadama te doo ci wax doo bëgg ku ko publier doo bëgg ku ci wax xam naa du loon lu neex euh, ñiy wax euh, yi nga xam ne yaa def man xam naa ci dara j'en sais quelque chose mais pour ñi di seetaan moo tax qu'est-ce qui te donne le courage de donner ak joxe ni mu mettee mais tu as toujours eu le courage waaw non parce que man dama juddu fekk sama papa di joxe sama yaay di joxe tu vois

ma mag ci loolu may mag nit xam nga nit ñaan ñaan neexul nit bu la ñaané rek sonna parce que nit bu yalla may jom may ko xol bu la ñaané rek sonna tu vois donc bul xaar loolu bul xaar mu ñaan la yow mu né def té bokoy def sa loxo bi bu mu gis li nga yor ci sa loxo droite je pense que moy li gën parce que sutura si le le xaj mhm. et puis nit soo koy may nga may ko ah dignité mhm. dina ko nangu tu vois mais soo ko ko aussi bon dina la dina la mais xolam defu ko te de si suñu rek tu vois mhm. donc euh, bima kay def ba en fait au contraire euh, alhamdulillah daf ma pas khalis spirituellement mais en tout cas je fan la suis, xamna may kan yar et c'est moy lu a am importance dans la vie en fait qui ko perdre rek perdre nga et ñepp kep ku ma si lay dimbali nit nga dimbali ko sans pour autant nit ki loolu est le plus important dans la vie je pense. voilà machallah. il se nomme Pape Malick hein, li may wax chaque jour euh, toujours humble toujours disponible mais toujours discret aussi hein. defna a ay jaloore ba comme j'ai l'habitude de le dire ndax a euh, ku def ñu wax ko bo deful duñ ko wax dafa def motax ñu wax ko euh, way la ci jeunesse bi ndax changé wul mais ku ne xam ci lu ñu muy actualité muy mondial. Mm. sa intégration biir équipe nationale tay buñuy jox ay leçon de morale euh, xalé yi suñu xel day dem ci yow mm. suñu xel day dem ci Badara sen day dem ci Sidi gisse et cetera mm. yalla dimbali la vraiment nga nekkoon équipe nationale nekk gaynde pire mm. ba ci bi nga ñëwé ñu bëri dañ doon wax Aliou Cissé mo ñëw si lan arñi bi nga xamné ni amoon nak ak fugu certes sax man man mën naa taxaw télé laa waxee ya ko mënon <laughs> d'accord parce que tamit suñu fierté nga won mais tay sa intégration biir équipe nationale lan nga dund ci biir équipe nationale lo xamné ni tay doo ko fàtte xam nga équipe nationale moom dañu ni ñi ñi a valeureux si moment moment M. Mhm. ñu né yéen yéen représenter suñu dëkk tu vois. Mhm. je pense que ne yow le la choisiree nga joggé Sénégal ah. nga joggé Wakam. nga jóge Représente tout tuloo yow as jaxate yow rek tu mhm. vois da ngay représenter Wakam bi tu vois et forcément soo demee gars yi dañ lay tooñ waaye ah, lébu yi affaire yooyu tu vois c'est une fierté c'est une fierté ngay wax nga am accent mhm, accent euh, le bi waa naka la kan la affaire gars yi di la tooñ mais du loo xamante ne mm. c'est une honte au contraire c'est une fierté man loolu laa loolu laa mas a défendre au fait tu vois donc euh, mu nekk fierté bu rëy par rapport déjà à ma famille mm. mais par rapport aussi à toute la population wakamboise parce que je sais que ne voilà Wakam waa bu ne da Bako en fait, fekk da naan kii sama sama boy la xam naa ko mm-hmm. Mm-hmm. sama kanam le judo sama kanam le màggee et puis voilà à l'époque on s'entraînait à la DA 160 mm-hmm. donc Wakam waa yu bëri di ñeu 17 ans c'est entraînement man même pour moi, c'était une fierté parce que sa ce qu'on la ñuy entraîner c'est quelque chose voilà sa diiwaan la ñuy entraîner gars yi dañuy xam yow yaay kan et ça aussi c'est important quoi loolu c'est très très important c'est très important. Mm. équipe nationale nation mm. Mm. sargal. premier match. honnêtement ressenti il faut faut pour parce qu'en fait xam nga euh, club jouer devant 80 000 personnes ça peut être juste impressionnant vite fait mais sous des équipe nationale nga au stade de l'amitié Léopold Sédar Senghor pardon mm-hmm. nga avons mu dès dell à l'époque tu vois mm-hmm. nga gis ay nit nga un hôtel yow tu entends le bruit dès 13 h or que tu joues à 15 h voire 15 h 30 C'est quelque chose d'énorme. lu motivation mm-hmm. un déjà motivation deux famille mm, copains gars peinture bind en lettres rang yow donne la sas au fait, tu vois, donne la sas. Euh, tu as plus de pression qu'en club. Donc forcément, voilà, da nga wa waa Wakaam yi ñëw stade yëpp leen bëgg sigil même bu équipe bi ñëpp deful match yow da def sa match parce que moi li parce que yow bugo wa wakam di biñu ñu leen di saaga ne laan ay eh, numéro 4 bi xamul dara wala quelque chose donc lolu déjà dang koy ngemboo et lolu moma musa mës motivé en fait bu may ñew équipe nationale ba taxna suma doon ñew équipe nationale mon, la famille, ils venaient à l'hôtel que quand j'avais besoin d'un truc. Beaucoup de gens parce que wax concentration. voilà à ce que da nga dem compétition en fait exactement Si je les pose, la nga dem say samedi le samedi soir dimanche a sa famille y a mais concentration c'est très important en fait. pourquoi as choisi le numéro 4 numéro 4 parce que souvent jour yu bëri yu ma yu ma euh, si yu ma donne roy je ma un xale. Mhm. numéro 4 donne le sol. comme quand, par exemple. Maldini qui donne le sol 3 à l'époque je me donnais Kiev numéro 3 là, donne sol. Mhm. Maldini Nesta. Mhm. Euh, je me rappelle euh, Fernando Redondo qui donne le Real ay ay jour yo xamante voilà jour, jour de classe mondiale. effectivement bi ma nekkee xalé ñooñu la doon sétane ñooñu nga doon suivre. ñooñu laa doon parce que dama doon wax né ñi au fait carrière yi ñu am c'est des carrières extraordinaires. extraordinaires et lool la doon ñaan yalla au fait. jouer ay Ligue des champions. tout ça donc yalla def aussi ma dem ba tollu di jouer match Ligue des champions xam nga donc. Hmm. Euh, donc forcément mu nek lo xam da nga nan way li ma doon roy au fait amna lu touti luma ma si jël quoi euh, nga dem France yamo ci Nancy jóge nga fa ban club nga demat hmm. ginaaw bi nga jógee France aussi yan deuk nga xam def nga ko ci sa ah, carrière loolu football loolu moo tax mu mu intéressant hmm. parce que daf lay jangal lu bëri hmm. donc je pense que né pour juste faire un crochet pour les jeunes yi nga xam dañuy football souvent les gens ils disent que né waaye les footballeurs sont bêtes mais footballeur warul bañ a mën a parce que man jogé en France après Madame Dynamo de Kiev en Ukraine. Mhm. j'y suis resté quatre ans. waaw jang russe musuma mon xalaat sama aduna ne dinaa làkk russe. waaw ma jogé fofu ma ñëwaat Saint-Étienne j'ai fait un an six mois ma jógewaat fofu dem Lyon tu vois après jogé Lyon demaat Espagne jangat benen langue jang espagnol après demaat. Turquie. Euh, trajet yooyu yëpp def sa carrière. ouais. avec club différent différents. exactement langue différentes ouais. donc international bi ñuy wax donc prouvé. Ouais, prouver. waaw n'est que footballistiquement mais après sur le plan linguistique xam nga nit pas yow foo dem langue bi beaucoup si vie ok munoo munoo interagir ak nit ñi munoo donc forcément ñin dina le romb ree wala groupe talk dirait, ree nga ne dañu raciste or que peut-être ñu ngi def ay compliments si yow xam nga il faut que ñu jangal suñu jeunes ñu am l'esprit ouvert bu ñu demee fenn nañ profito ñu jàng langue bi football fay jeex dëgg la le foot s'arrête suba mën nga gagne. mais jangon nga ben langue mën nga ñëwaat Sénégal nga nekk traducteur ou autre donc nañu avons am l'esprit ouvert ñu xam le football kat du ku bett. looy defee tànk rek ku muusul du ko def. donc da nga bëgg football sans Tank, am na en avant lu xel mi. war match ah ba pare mais déjà football. football football mooy le seul sport boo xam ne tànk rek nga koy defee le sport yëpp di loxo neex na. Mhm. handball mun nga utiliser sa Tank. rugby mun nga japp bal bi dóor ko dawaat jàpp ko mais football que les pieds donc comment muusul du ko def parce que y a tellement d'éléments yoo war a penser xam nga pour éliminer l'un, pour anticiper l'un. donc le footballeur n'est pas bête il faut que les jeunes ñu xam c'est un jeu d'intelligent mais à part loolu même sur jàngul école maintenant les clubs sont structurés xam nga soo demee jàngoo nga ne dama bëgg telle chose dañ la koy Django? Mhm. et puis tu ne le payes pas ça fait partie de ta formation. Lolo, c'est très important. ok euh, asmaliku ñu gis ci yow euh, vraiment une évolution Si c'est côté communication si c'est côté éducation. Mm. bi nga xam ne dem nga foofu ci Nancy Lorraine. Mm. en fait qu'est-ce que tu peux nous dire nga ñu séjour ba nga mm. tu vois am famille. et tout sa belle famille sax la mën expliquer c'est comme si ñom ñoo la c'est comme si c'est ta propre famille mm. euh, wax goko fu dans les dans les médias partout mm. que c'est ta propre famille mm. ñu dem ba jox la fu ay cieur lan mo la may lolu ah, xam nga nit mom comme li olof di wax rek mhm. nu la uude gisee non la lay tu vois parce que xam nga so demee fenn mhm. nga nga nga ñak fayda euh nek ko xamné doyloo loo aussi li la yalla jox mhm forcément nit ñi dinañ gis yow loo xam ne yow du la neex wala du neex sa mbokk tu vois donc euh, man Nancy bu may egsi Nancy j'étais jeune Nancy formé waat ma laay wax parce que am nañu participer sama formation ici gens yoo xam ne je ne saurais être reconnaissant envers eux parce que xale nga yor ko développer ko développer mentalam déjà c'est très important tu vois donc du coup loolu rek déjà dafay tax yow soo demee feneen da ngay nekk nit boo xam ne Amo complexe au fait mon complexe parce que l'État, peut-être ngay wax évolution suis moy dama jël li gën suis jël li gën Europe euh, peut-être peut-être y rek mo xam ki gën mais en tout cas man Europe li fa am si lu bax lol dougal sama bopp lol c'est jéem a sama dom li am Afrique aussi c'est ni jël parce que parce que loolu moy li gën li gën dal li gën parce que nit sokoy défar da ngay jël li gën ci mom nga développer ko donc je pense que né loolu moo tax peut-être évolution bi démé démé nonou et puis quand on yalla aussi parce que yalla nit bu nek mo lay mooñ mo lay mo lay mol mun nañ la mun nga juddoo ci famille machallah famille bu jullite nga def na sudul su dul nga jullee tamit ci famille bo xamné ne kenn baaxul yow nga ñew bax yalla moy mol nit bu nek mais ça bi moo si am importance. am importance exactement. Machallah, machallah. Euh, toujours humble là. Euh, tey Malick gis nañ sa taxawaay ci li nga xam ni équipe nationale c'est jaloore mm. mais du club yi nga déjà a defagum ban club moo la plus marqué si sa si sa saison si sa parcours. Euh, Nancy parce que Nancy xam nga soo si club étant jeune. Mm-hmm. nga jouer professionnel très jeune. parce mm. que mon Bouma, mais. 16 ans et demi, là, commencé à jouer professionnel. 16 ans ah, Donc ah. après, euh, nga def équipe jouer à 17 ans et demi monter première division nga participation très forte tu deviens capitaine de cette équipe à 19 ans et tu restes encore 6 saisons avant de partir affaire aussi c'est très marquant coupe le championnat Ligue 2 deux fois euh, participer Coupe d'Europe or que club ça faisait des années de ko woon daf marqué forcément daf lay marqué parce que parce que loolu lañ doon xaar si yow donc euh, yàlla jàppale la ba nga def passage boo xam passage bu ma marqué là. après deuxième club bi ma marqué, moi marqué mooy saint Etienne Saint-Étienne parce que saint Etienne six mois avec la fa def marqué nga but bi nga ouais mais comment ça a été Saint-Etienne moi, stade suis à à vie. ok marqué à vie parce que euh, moi, Liverpool France au fait ambiance et puis nous ñi amuñu comme tu vois. donc forcément nous avons fait simple mais ay donc forcément voilà son nekkee si genre environnement ni nit ñi bu ñu lay bëgg bëgguñu pour xaalis bi nga le dañ bëgg parce que dañ le bëgg quoi. c'est naturel. exactement. macha allah voilà. tey Malick gisatuñu la ci terrain yi. mais terre où il def say ay jaloore. jaloux mm. nañ benn vidéo boo xam ne nii récemment dafa viral. Mm. parce que yaa une nekkoon di motiver ay jeunes. Mm. nekk ci benn salle. nga wax ñëpp tàccu ok. ça fait plaisir mais taï Malick dafa dindi ay godaasam tek mm. mais nek formateur. Ah, mine de rien nak ñu ngi lay suivre. Ah, on sait que né maintenant man mën naa ne du ma waxati Malick l'ex international je sais pas. mais l'entraîneur. tay lan mo le motiver ba nga dem outil, ji sa ay diplôme ba mm. tay nga bëgg nek entraîneur bu ragné et pourquoi pas euleuk ñu mën la jox suñu équipe nationale qu'est-ce qui t'a motivé. Ah, apprenti entraîneur lay wax parce que ma jàng métier bi. Mm-hmm. xam nga nit mom le plus def na na humilité effectivement avoir été un grand joueur ne veut pas dire que tu vas être un bon entraîneur. non forcément donc dans ngay dem nga jangi métier suis gis rek mm-hmm. ça fait un peu plus de cinq ans j'ai entraîné équipe amateur. Mm-hmm. donc cette année en passant aussi mes diplômes. Mm-hmm. donc forcément cette année mu ngi incorporé une équipe professionnelle en Belgique. et entraîner équipe réserve donc forcément, voilà, quand on est dans le monde professionnel où on a, on a été pendant plus de 20 ans, on ne perd pas nos repères, ni jëlaat ni repères mais entraîner à jouer n'est joueur mais métier es différent là. c'est pas facile alors bien que nous amenons na lié non c'est pas facile c'est pas hmm. facile parce que si tu da que 9 h 21 h nga as sa nga jëlaat sa ordinateur pour préparer sa séance du lendemain defaat débriefing sa entraînement bi nga defoon quand tu étais joueur c'est pas pareil. donc pourquoi le choix. parce qu'en fait bu ma arrêté football j'ai beaucoup voyagé pendant deux ans dama arrêté ma voyager dem naa dëkk yu bëri en football ce qui se fait dans le monde nan le football bi développé participer ay conférences. Au choix, à mon euh, peut-être dans la préparation physique, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Mais je sais que voilà, je euh, compte toujours un relais entre mon entraîneur et l'équipe qui Souvent, j'ai été capitaine d'équipe ou vice-capitaine. Donc, euh, à chaque fois, moi, ça entraîneur dans une discussion sur le plan tactique. Ça m'a toujours attiré donc forcément vous m'avez arrêté après xool match tout ça Je suis man lila laa def parce que challenge le beau xamante projet là. pour nga entraîner équipe vraiment il faut un projet projet de jeu projet de vie de groupe mhm. projet sportif mhm. nan ngay def ba équipe bi développé nan ngay def ba football loo équipe bi ni nit ñi nan la def ba dundundo ensemble en fait dafa bolé ay parti manager. voilà meneur d'hommes. un tacticien. donc voilà mais après aussi nga entouré des bonnes personnes. pour progresser pour ce que tu fais. lolu moo ma attiré aussi et et je vois que voilà m'angi vais continuer maa progression petit à petit. vais ngi hmm. métier comme on dit. parce qu'il faut nga jang aussi foog nga jang exactement donc message bi nga xamné ni mom ngay lancer euh, jeunesse bi nga xamné ñu ngi nek di football. Mm. Hein, rawatina wara dem uti xam-xam bo leen conseil, lan ngeen leen jox ci ñu boole métier bi ak football bi wala eh, football bi ak école bi tay lan nga leen wax. en tout cas man lima sama lima sama wajuri yi sama mag di doon conseil loolu lay conseiller ñep parce que je pense que nit ñoo ñoo ma gëna bëgg. Mm-hmm. donc suñu mo conseiller lu baaxul te lépp lu ñu ma mus a conseillé lu baax rek laa si gis. Hmm. jàng ñii di nañ parce que ku football mënul bokk ak jàng dafay naax boppam. tey tu vois des grands footballeurs c'est des ingénieurs. am na ñoo voilà c'est c'est des têtes pensantes. Même dans les académies boo exactement donc mun na ànd. mun nit lépp lu mu bugg def mu def ay sacrifice mu am si jom am si fulla am si fayda mun na mais nous bëgg li ñuy def football dafa. dafa comme on dit. voilà moo moo olof bi gën a wóor mooy football da ngay bëgg li ngay def nga bañ ko boole ah leneen parce que loolu la ñuy woowee vraiment sacrifice parce que souvent damay wax sama yenn copain journaliste ouais qui a amul droit bi parce qu'il a gagné de l'argent mais non non non le gars dafa gagner xaalis mais avant a gagné xaalis mom su la waxoon yow lan lay def yow do ko def parce que tolu nga si âge guen dem def lu la neex mom mu nelaw tu vois donc nagn gëm ne c'est pour un laps de temps mais laps de temps boobu lo si muñ tu le récoltes là après et puis ñu xamne timit que ne buñu guen rek fàtte fiñ c'est très important nit fo mun dem rek armé wul yow yaay kan c'est très important. les racines avant tout. exactement man en tout cas je pense que c'est ça qui m'a permis d'être ce que je suis jusqu'à présent et voilà su ma man peut-être que na jig une génération. c'est vrai. Euh, d'après yow nan nga gisee ci li nga xam ne club Wakam en tant que ngay doomu Wakaam nga jaar fa. Mm. récemment gis nañ nga def benn geste bu noble. Mm. peut-être que nañ ci waxuñu ci yaa ngi def sa apport say soutien yaa koy def ci club bi. Mhm. malgré buglo ku ci wax. Mhm. mais tay nga gis club bi nek en D2 di souffrir. Mhm. barki démb Mor Ndiaye gis nañ fi ñu def ben conférence de presse. Euh, dajalé wakaam bi yëpp tay en tant que. duma du ne ex international comme ni nga waxee mais en tant qu'entraîneur tay boo doon jox conseil ñi nga xamné ni ñoro euh, ñoyor équipe bi wala nga leen encourager ana tay lan nga leen wax à ce que ñu delluwaat si yeen bi ngeen nekkee nekkoon ci équipe bi équipe bi di dox à 100 tey ñu gis équipe bi mi ngi gën hmm. malgré les disputes malgré vraiment hmm. bëri na ay ay ay problèmes hmm. ah, mais est-ce que jotul c'est un genre bi ñu mëna tok waxat waxaat wakaam ne leen nii lañ wara mëna def à ce que équipe bi ñëwaat fi mu si man je pense que ne voilà man l'équipe dirigeante je les connais parce que samay grand lañ ah, ñoy tok di naanandoo chain tout ça et puis voilà souvent franchement man des fois ils me solliciter si ben conseil ou non la xalaatee dara mais je le fais parce que je suis on voit comme là-bas donc forcément c'est ma participation mon nekk comme mon suis nekk mais je pense que ne tey euh, si on n'est pas à l'unisson mhm. waxaam lépp lu mu faire du Il yow a ko wax sa question parce qu'il y a beaucoup de discord on est d'accord si on n'est pas à l'unisson on n'aura jamais ce qu'on veut un deux il faut que les joueurs Wakam footballistes si équipe Wakam tu mhm. vois ce qui se fait partout dans le monde Sauf demain Liverpool ils forment des joueurs qui habitent Liverpool qui vivent comprendre nga mhm. Dans le doon wax nga ans. temps on était une équipe cadette on était 21. il n'y avait que quatre joueurs qui n'étaient pas de Wakam donc je yi di toc di wax non équipe bini ça sama conseil moi balaa ñuy wax mm-hmm. nañ dem ñu entraîner comprendre tout nañ dem ñu entraîner ñu faire sen place si nous demee ñu faire sen place ba ñu leen ah bëgguñu mais ça c'est un fait ça c'est un fait ce qui est différemment de ce qu'on peut penser mais li ma leen bëgg a wax mooy équipe bi équipe la kenn du ñëw Wakam pour ñoom avant eux ça un c'est important mais pour le moment c'est mon avis personnel Pareil, pour la première division. Hmm. tous les moyens ne sont pas réunis. Euh, moyen ne sont fi réunis. mais projet il faut que nous défendons nos projet pour durer tu vois l'équipe dirigeante qui est là ils sont très intelligents très compétents mais il faut qu'on leur laisse du temps et puis nous unisson derrière eux tant que une unisson je pense que Wakama a toujours été comme ça à chaque fois qu'on a été unis nit mënuñu nit mënuluñu dara. c'est vrai donc lolu les discordes à gauche à droite nañ ko bàyyi sen dom moom mo leni ñaan lolu au fait. parce que c'est c'est c'est c'est valeureux xam nga ngay dégg non wakam ñu première division. c'est et puis même pour suñu jeune dëkk bi. et club yi mën nañ leen ñëw gis leen ñu dem. kañ la wakam gëj a formé jour mu dem. yàgg na mu en Wakaam moi je parle. Hein donc loolu aussi c'est important nañ former suñu booy qu'on croit en eux et que suñu booy aussi si on croit en eux ñu bàyyi toog naan ataaya bi tout ça ñu dem ñu entraîner voilà football place kenn du ko jox place dañ koy xeex voilà place dañ koy xeex Amna solo ñu ngi may signaler ne euh, li ma dese ci temps bëriwul mm-hmm. mais du ma doyal ci waxtaan ak yow man

xam naa moom su ma ko jàllaloon dina ma dóor ko ci mel ni Aldemba. Ah, ah, Boy <laughs> ah, vraiment ñoom ñoom ñoom Jobel. suma grand yooyu noonu ñoom Jàppa. léegi moom pas Jàppa sax parce que récemment may na doomam donc c' est léegi maam la léegi maam la pratiquement. ma bàyyi la nga nga nga nga nga terminer ak loolu. en beauté surtout di di nuyu waa Wakam. di di leen gërëm di leen sant di nuyu waa Senc parce que fala soso xam nga. sen doom là donc euh, di nuyu ñep ñi ma gis sagum ñi ma gisagul euh, et puis xam nga so nekké bitim rew dina am ay nit yo xamné ils sont décédés derrière toi

Euh, lol moi truc après euh, par exemple les projets les plus proches c'est continuer les diplômes passer le dernier qui reste l'avoir comme ça pouvoir entraîner euh, dans le milieu professionnel mais continuer toujours mon apprentissage parce que comme li vous la dit, wax rek nit ñi dañuy am ci ñu parce que lol c'est très important voilà continuer à travailler parce que nit lepp rek nga donc continuer à bosser dur comme on le fait et puis euh, voilà pourquoi pas ñëw fii def fi affaire par rapport à club yi entraîner c'est important parce que les lu ñuy def rek bëgg nañ Wakaam gis ci voilà donc loolu moi suñu mébét Inch'Allah allahu rabbi et puis aussi voilà suñu suñu jeune frères yi nekk fii euh, suñu jeune dom yi voilà accompagner les en tout cas de la manière qu'on peut le le, le, la meilleure des moyens qu'on peut faire, qu'on fasse ça. Et puis voilà, nous sommes en Andal, Yanni Sarsara, Aram Fele, mais en tout cas, nous sommes tous les gens qui sama nous sommes sama ñom français ban nga souvent. français des fois olof. Mm. mais mais olof bi moy dafa tax mais en tout cas légui tay bo boo don bo de passage en français genre. Assez ah, connu que nous ce message Non, euh, les deux sont là avec moi, ils sont à la maison. Mais en mhm. tout cas, voilà, Samayaï Aram, mhm. qui, est, qui à Nancy, je lui fais un gros bisou. Parce qu'elle sait que voilà, je l'aime fort. Mhm. Et puis que voilà, je n'ai pas été là pour Noël, mais je vais rentrer, on va lui ramener les cadeaux. Hein, Inch'Allah. Et le maman aussi Voilà, et, la maman forcément. La maman, <laughs> paraît que tu l'aimes trop, mon gars. <laughs> Boga <laughs> eh, Boga paraît-il yo, yo yow pare woo sax si tu ci ci ci ci ci le gars yo yo ay ñaar ñett yooyu noonu. tranquille tranquille tranquille. ok ok nous on est tranquille ok macha allah. ay tapet lañ tapet. exactement non xam naa ne nag mosoo nekk ragal nag xam naa la bu baax nga mos a doon en dehors terrain sax génne nga mos a doon. exactement ah, vraiment content euh, nañ trop trop trop trop. Euh, asmaliku vraiment ça fait un plaisir. ñu am la tey en tant que doomu wakam mais damay profiter aussi di remercier Gibson. Euh, Jibi. Euh, mm. moom aussi ku baax la. Mm. jibi ku ku mm. mais en plus kuy doxal li ngay def la. Euh, moom muy moom muy la famille et cetera koy de Gibson. Mm-hmm. merci pour tout parce que invitation bi ko bëgg. Hein, mais yàlla la fois passée def nañ lu ne ñu mm. bañ nga tarre sa vol mm. mais cette fois ci mu ne non il faut ñu def ko as aussi nga nangul ñu ko mm. ne man wakam la am bu ma wakaam soxlawee damay bay lepp li may def donc lool fierté totale lañ ci am may remercier bu baax jibi merci pour tout mon frère talibé Serigne Khalil Mbacké ah xaritu Serigne Khalil vraiment mom suma bay Fall la Djibson may profité di ko joyeux anniversaire en retard gën gëna dund gëna a quoi Malikou xamna né jël na sa temps tay vraiment tarrel na la mais quand même plaisir le Wakaam bi yëpp seetaan la ban mo ngay tëjee hein, avant ñu dem ak lan nga ñu mëna may ci OTV bi nga xamné ni maintenant il est international mëna wax lolu tay OTV fep mën nga ko am lolu fierté la en fait fierté la nga nga nga nek victime rew ngay gis say nouvelle deuk fi nga soso lolu yeen rek yéen tax ñu mën ko am au final donc forcément lolu lolu c'est touchant et puis di di len di len gërëm aussi parce que comme li ngay wax yow yaa may remercier mais forcément man maa leen war remercier yéen yéen a déplacé wu yéen a suscité lii mu am donc forcément voilà nit ñi des fois dañuy bëgg a am nouvelle lu nit ñi donc yéen ngeen jottali loolu donc euh, sincèrement merci merci man

ñu respecté la jox la cër tay ku Maliku lu rafet la ci teg mm. ah, ci sa ci sa diine ci sa mm. yar mm. vraiment sa passe passe, ak sa bëgg gi nga xamné ne bëgg nga ko wakam donc ñun ci loolu la dox comme ni nga ko waxee rek man noonu laa koy waxee ñun amuñu dul wakam donc j'en profite pour wax né wakam nañu def unisson bu ñu bëggee li ñu bëgg yëpp ñu mm-hmm. yott ko nañ def unisson mm-hmm. comme ni nga ko waxee en tout cas merci ça a été un grand plaisir ñu am la si suñu ay plateau vraiment ñu ngi lay remercier bu baax a baax Maliko <laughs> doyalu ñu si yow <laughs> mais xam naa d'ici peu rek incha allah rabbi ñu xaar diplôme yi ñëw ah, pourquoi pas ñu dem ba jëlee suñu équipe nationale nga ah, ñu laaj ñu coupe d'Afrique mën na nekk ñun ñu ngi ah, raam ñu ngi jàng yàlla baax yàlla yàlla mottali ko vraiment euh, chers amis chers internautes chers téléspectateurs li lañ leen indiloon tey si seen émission au sport ak l'international

wa ah, wa Wakaam yëpp bu ñu dañuy juum les imams ulama yeb ñu ngi leen di ziar di bu mais di remercier aussi sama wa télé wa timbi ah, rawatina équipe bi nga xamné ñom la andal en commençant par Papa job Jack MHD ah, Lamine Bit vraiment mention spéciale à vous wa logistique ma leen di gërëm bu baax a baax ñi ne si régie bi ma leen di gërëm di am mbékté ak contentement bu baax a baax di leen jox dig dajé d'ici peu ci seen émission au sport avec Amdi Moustapha Thiam longue vie à tout le gudd fan wér gu yaram sutura bu saawan baawan kontaan continuer Wakaam moo ñu ñor Sénégal moo ñu ñor vive l'Afrique jaa ngeen jëf dig daje ci beneen level incha allahu rabbi